jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu daal di euh, am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am si rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu génn si ànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu maitre maître Abdinar Ndiaye moom nag muy avoca ba pare bokk ci parti bi nga xam ne mooy. MPD liggéey euh, moom mooy seen porte parole moom la ñu invité tey fas yéenee waxtaan ci euh, élection locale yi ñu weesu ñu bëgg see def benn benn commentaire benn taxaw seetlu euh, MPD liggéey ak de manière générale danañ wax tamit ci élection législative bi nga xam ne moom la ñu dëgmal maître Abdinar Ndiaye yow yaay porte parole MPD liggéey maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Abdou Khadre maa ngi lay delloo nuyu di jaar ci nuyoo boobu di nuyu bépp sénégalais. di ñaan yàlla suñu borom mi xam ne moo am kàttan mu defal nu fannu gudd ak wér ak xéewal te mosal ci lépp lu mën a gàllankoor. Euh, maître Abdou Nar Ndiaye yow yaay porte parole MPD liggéey comme ni ma ko waxee sànq euh, ñu nuyu ki nga xamante ni mooy seen leader. Euh, di docteur uh, Sow ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko jox uh, wàccuwaayam suñu laaj bu njëkk mooy élection locale yi yi nga xam ne moom la ñu génn ba ñu koy waaj invité woon nañ leen yéen waa MPD liggéey Euh, ngeen waxoon li nga xam ne moom ngeen fas yéene woon a dugg euh, ci élection locale yooyu euh, élection locale yi passé na ban taxaw seetlu nga ciy def en tant que porte-parole MPD liggéey. waaw sëñ Abdou Khadre di la sant ak di la gërëm tey di lu ñëwaat fii ci réew mi FM xam ni rajo bu mag la boo xam ni sénégalais dañ koy suivre donc ñu am mbégte mu rëy di fi ñëw di fi sotti sunu xalaat weccante xalaat ak ñi xam ni ñoom lañ koy sekkal. ah di wax ni aussi euh, di sant yàlla suñu borom ba élection locale yi bi mu jaaree ba jàll yàlla def ko ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin ah am na nag ay jàngat yoo xam ne nii feeñ na ci benn bi ci njëkk mooy. mel na ni gis na ni dafa mel na am lu mel ni lu ñu wax rejet du régime en place donc par les grandes villes notamment par na mel ni Dakar lu mel ni Ziguinchor lu mel ni Kaolack Touba ak Diourbel euh, mu ak Kees mu mel ni dafa am une perte donc notoire bu coalition d'opposition bi xam ni mooy Yewwi Askan Wi mais aussi une partie de la société civile loolu benn jàngat la waaye nag buñ réere mbir ndax bu nu seetee gis na ni aussi majoritairement le partie au pouvoir muy APR moo am majorité aussi sur l'étendue du territoire national li ko sabab mooy boo seetee dans les grandes zones rurales euh, l'opposition bi duñ fa teew tey parti au pouvoir bi dañuy utiliser souvent maanaam niveau de précarité bi xam ni mooy nekk ci zone yooyu Euh, pauvreté bi manaam pour di leen maanaam def ay promesse donc euh, d'emploi lu mel ni aussi ay enveloppe yu leen faral di jox ak ay saagu ceeb euh, donc ndax coono yi ni nekk day faral day waral maanaam zone yooyu toujours parti au pouvoir bi daf koy ëpp doole ndax alal ji mu fay dugal non électoral lu am solo la parce que boo seetee ci boo sukkandikoo ci ANSD S ANSD. voilà xam ni mooy yor maanaam li ñuy wax. Euh, mooy xayma mooy xayma moom 54 pour cent. bu population Sénégal zone rural la kon loolu lu néewul doole lu am solo la daanaka boo ko remporté rek da ngay remporté les élections. Ah, mais mais li ma bëgg a wax mooy. Euh, waaw jàngal la bee ñu ñëw si boobu mais maître Abdou Nar Ndiaye il faut que ñu comprendre aussi que ne. man mhm. nga gagné mhm. vingt communes ci monde rural bi. Mhm. électorat bi tolloo ak benn benn ville wala benn commune ci ci ci kii bi. waaw dama wax ni majoritairement boo seetee. maanaam ci zone rurale yi euh, ci élection yi nu wees mm. opposition bi daanaka am na opposition euh, opposition boo xam euh, opposition yi am na ci contrat yoo xam doo leen fa sax fekk seen liste amu fa mm. te boo demee nag fay fekk APR te day rafle li lépp donc bu fekkee monde rural bi dañuy représenter plus de cinquante quatre pour cent de la population donc boo ko gañee rek daanaka même boo tey aussi nañ xam lenn mooy alip APR wala régime au pouvoir benn bokk yaakaar lu mu néew néew doole ba perte maanaam euh, kii noonu tudd grande vide du tee dafay am doole torop dañ ko fay raw waaye day am doole bu ko boolee nag gagné li ne ci monde rural bi day naqaree daan loolu mooy li xam ni mooy feeñ ci njëlbeen ah li solution mooy aussi euh, opposition toujours ñu également di wàcc di dem au profond fond du Sénégal pour man a effectivement donc waxtaan ak Sénégalais yi euh, woo leen ci li xam ni mooy seen combat bi xam moom la ñu mën loolu benn combat la mais boo seeti aussi li tax aussi euh, manaam ci monde rural bi maanaam le régime en place di ko gagné mooy dañu am également des pratiques peu recommandables yu def par exemple lu mel ay transfert de vote man zone bi ma nekkoon j'ai réalisé que ni foofu y avait effectivement des transferts notoires en fait de ñoo xam dañu commune Taïba Ndiaye ci boppam ñoo xam dañu jóge ci yeneen dëkk dëkkaan yi ñu jële leen fa organiser ko orchestré ko boo xam ne dëkku ni ci Taïba ngay yéemu ci yàlla ci maanaam mbooloo mi voté ci jour boobu ni mu toll nga xam ne nii dëkk boo ko saytuwaatee ba xool ko nag ci nga gis ni ah bañ a xamante bu baax a baax waaye nag ci ginnaaw bi ñoom bu buñ koy def yow doo ko yëg te une fois maanaam ñoom ñu entériné seen vote mënatoo ko dellu day légal parce que bu xesee figuré ci liste bi rek euh, ci circonscription bi mënatoo koo bañ loolu da nga koy def ci loo xam yow doo ko yëg te loolu maanaam ñi xam ni ñoo am di saytu la lu mel ñoo ci war a taxaw mais loolu yaakaar naa ni comme ni ñu wax rek ku ndëmin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw yaakaar naa bu ca delluwaatee lu mel noonu dinañ ko taxaw ba ba mu deñ incha allah waaw d'accord léegi maître euh, Abdinaar bala ñuy ñëw si beneen point bi yow mm-hmm. avocat nga mm-hmm. transfert d'électeur boobu yoon terewu ko waaw xam nga transfert d'électeur en kay yoon da koy tere Euh, mais xam nga bu fekkee nit ki li tax maanaam mën nañu wax ni yoon tere na ko yoon tere ko parce que maanaam loolu jaa jaaduwul jëkkul parce que day fausser le jeu démocratique mais boo seetee ci xam ni dafa di wut certificat de résidence ci mairie am ci anam boo xam dafa jaar yoon maa mu ñëw ci euh, président commission bi xamul li xew moom jàpp na ni kii Taïba Ndiaye la dëkk moo dugal ko ci maanaam système bi alors que en réalité yow xam nga ni kii dëkku Taïba Ndiaye loolu mën nga wax ni jekk na maanaam xëy na jaar na yoon ci wàllu doxinin waaye dëppoowul ak li xam ne est-ce que du faux usage de faux waaw moom laa wax dama ne yooyu yëpp xam nga moo tax dafa waroon am ay poursuite maanaam pénal parce que boo seetee ñi koy def maam c'est des faussaires. wala code électoral la ñu doon changé. code code loolu dañu seen ci àgg xam nga code électoral bi bokk na ci deuxième point bi mu am lecture. Hmm. boo seetee d'ailleurs si da nga may permettre ma dugg ci boo xoolee système électoral bu Sénégal ni mu tëddee maanaam dafa doon ko war a soppiwaat doon ko war a xalaataat. ci yu bëree bëri tey jii da ngay gis maire yoo xam ne dañuy gagné mais majoritaire nu. waaw mm-hmm. ah, dëgg la. tey da ngay gis maire boo xam ne nii. Mm-hmm. dafay gagné élection waaye amul majorité. c'est-à-dire. te loolu li ko sabab mooy majorité mooy mooy euh, système bi nu teg mooy raw gàddu. raw gàddu boo xisee def rek yow boo jiitoo donte benn xob la yow yaay nekk maire. te alors que yow ñi xam ne ñoom nga sekkal mbir mi bu nu xaymaa seen i baat ak seen i kii ñoo la ëpp doole foofu ànd ak yow mm-hmm. pour preuve. kon de nga doon xalaat. mais looloo war. <laughs> mais loolu il faut un retour à l'orthodoxie yow xam nga boo gisee may sawar di ñëw ci sa émission mooy xam naa ni dangay ngay da ngay da ngay gëstu lu bare bare bare boo seetee tey jii li ko mën a régler rek moo ñu delluwaat ci système euh, orthodoxie bi mooy organiser maanaam un second tour ci législative yi ak ci municipal yi bu loolu amoon kon jafe-jafe yooyu du am boo seetee preuve bi ci gën a palpable mooy da ngay légitime aussi da ngay légitime parce que yow raw gàddu la donc donte benn xob la yow yaay jiitu nekk maire alors que en nit ñi ànduñu ak ñu ëpp buñ leen dajalee la preuve xoolal fu mel ni commune bu Guédiawaye mhm. maire bi fi nekk. Mhm. mais gis nga problème bi mu ah? am. waaw Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara xam nga moo nekk maire. parce que raw gàddu la. Mhm. waaye ba mu dee ba ci biir bëgg a taxawal mbiram. daa am ay jafe-jafe. waaw parce que ña ko wër. ñu ñu ëpp ñu ëpp ca mbooloo ma àndul ak moom. loolu mooy la vérité tey aussi am naa aussi benn lecture bu ma gis ci ci élection locale yi mooy daanaka boo seetee li daloon Abdou Diouf dal Abdoulaye dal na Macky Sall mooy boo xoolee boo defee benn mandat ñaar rek da ngay gis ni les grandes villes dañuy commencer sanctionner le régime en place mmh. te buñ koy sanctionner dootuñu xool ñi ni fal ñooy ñan mmh. tey imaginer boo seetee ci ñun fal maire. ci ah, élection yi ñu wees. est-ce que bëgg a sanctionner ab président war naa tax nga fal koo xam ne xamoo ba xam am nay compétence wala amu ko. très bien foofu nag moo tax ma ne foofu la société civile bi war a gënoon a bàyyi maanaam xel pour gën a yee doomu aadama yi ci nakal Sénégal boo seetee mat na mën na noo folli waaye mun fal. Mm-hmm. loolu danga koy gis saa su ne tey jii ci mairie yi xam ne ñoo fi nekk am na ci ñoo xam ne nii borom yi nit ñi nu fal lañu waaye amul xam-xam. amunu man-man amuñu également relation amuñu jaar-jaar bu leen permetre ñu mën a yor mairie yooyu jëmee ko kanam te seetlu tuuti des na tuuti maire yu bari ñu fal leen léegi nga gis seen population retourner contre eux parce que doxin wi xam ni moom lañ doon xaar ci ñoom duñ ko parce que amuñu xam-xam ba amuñu man mën ba amuñu jaar-jaar ba amuñu également link bu leen permetre ñu nouer des partenariats forts yu leen mën a permettre donc ñu euh, soppi li xam ni moo ne ci seen commune yooyu te alors Aristote doon wax ni pour ah, euh, doon wax ni la société s'occupe de la tâche à laquelle elle se sent le plus doué en nature euh, par nature donc il faut loolu ñu bàyyi ko xel mooy bu ñuy fal doomu aadama dañuy fal koo xam ne nii am na xam-xam am na man-man am na jaar-jaar am na aussi relation bu ko man a permettre mu soppi li fi ne d'ailleurs loolu dina mu yóbbu sax ma wax ci boo xoolee ñi théoriser maanaam la politique mooy les Athéniens mm-hmm. mais Aristote euh, euh, kii comment dire Platon par l'entremise kii par Socrate par l'entremise de Platon Sénélec. De même que l'on s'adresse à un constructeur de navire pour un vaisseau, aucun autre avis n'est recevable. Et s'il s'agit de délibérer maintenant sur les affaires de la cité, chacun se lève, marchand, forgeron, riche ou pauvre, noble ou roturier, alors qu'ils n'ont étudié nulle part et n'ont été à l'école de commettre. donc dégg nga li ma wax li mu wax loolu day dikkaat ci loolu. donc pour asseoir une idée comme ni ñu pour prétendre à la destinée humaine il faut formation et une bonne éducation mais malheureusement le constat est man na noo folli waaye mun noo fal. waaw mais mais xam nga maître Abdoulaye Ndiaye bu dee ci euh, élection euh, élection locale yi. soo gisee tey par exemple tey askan bi su ñu amee lu leen naqari ci ki nga xamante ni moo jiite réew mi. du ñu xaar ba élection présidentielle ñëw waaye dañ koy ñëw ci élection locale yi loolu tamit est que du président bi moom si boppam moom moo dugal loxoom ci élection yooyu ba image am feeñ ba nga xam ne. Euh, bu ñuy sanctionné nit ñi bu ñuy voté dañuy jàpp ne moom lañu ñu amal affaire alors que affaire de gox la. non loolu sax gisewu ko noonu sëñ Abdou Khadre xam nga lu ma gis mooy niveau maturité population yi moo des maam conscientisation bi xam ni moo war a am ci population bi dafa des te loolu rôle lu parti politique yi la. Mm. seen défiance la mais rôle lu également société civile la en grande partie parce que ñoom ñoo war di alerte ñoo war di yii population yi ci maam choix opportunité choix yi ñuy def. mais boo seetee population Sénégal mais en majorité ñu ci bari ba c'est des analphabètes te loolu maanaam taxawaay bu mel noonu bu ñu ko amee ñi xam ne ñooy les acteurs war na nañu jël ay jumtuwaay yoo xam ne dañ leen yee ci essiance bu nu mën di jublu ñu wax leen la conduite à tenir mais malheureusement tel n'est pas le cas donc kii Sénégal ku fi falu rek daanaka yaay buur yaay buum yow rek la ñuy gis fi mu toll nii duñ sax gis maanaam parti bi mais li ñu xool rek mooy jëmmi Macky Sall. neex na leen wala neexu leen. est-ce que du si kii jiite aussi. déedéet kuy jiite du ci dara. xam nga tey président bi euh, maître Abdou Nar Ndiaye mm-hmm. tey. Mm-hmm. par exemple tey. Mm-hmm. su doon président li mu waxoon ne. Euh, dafay génn ci. parti APR su gañee réew mi. su tey laalewul ak APR demul ci seenum ndaje demul ci seen congrès demul ci seen anniversaire. Euh, sénégal yi gis ne kii kat président ñépp la. Mhm. du recevoir waa APR ci palais bi bu ko defee bu boobaa sénégal yi danañ mën a ràññeetle. waaw mais xam nga comme loolu loolu mooy l'idéal mooy li xam ne moom lañu bëgg te moom lañu tendre vers mais malheureusement du la réalité actuelle la réalité actuelle mooy que ñi jiitee fu réew mi seen parti duñ ko ngoo bàyyi. dañ koy gunge di ko jàppale tey loolu loolu loo ci dul bu ca boo caa yaa ca tamit. Mm-hmm. loolu olof yee ko wax mënunoo nanoo nekk parti fondé ko di ko doxal te it maanaam comme jugeegun ci maanaam taxawaay mën a doon président génn ci parti kon boo fa desee faw nga di saytu lu ni mel pour gën leen a dooleel gën leen a jàppale loolu moo ko sabab waaye man jàpp naa ne sa du problème mu côté boobu problème bi problème mu maturité la problème conscientisation des populations la des masses exactement maanaam ban conduite lan mën di tenir ci échéance boo xam ne jublu na. mais élection yi locales yi passé euh, bëri woon na ay liste yoo xam ne rejeté woon nañ ko ban jàngat nga si am ak tamit ndax jàpp nga ne élection yi jaar na yoon. waaw globalement globalement élection yi mën nañu wax ni jaar na yoon globalement. seulement am na des contestations et la contestation yi mënta ñàkk ci élection lépp lu mën di doon ñu di ko organiser mbooloo di ko sekk faw mu am ay ay ay rëkk loolu mun cee ñàkk waaye loolu war na noo yóbbu tamit ñu seetaat bu baax maanaam yu ni mel bu ëllëgee ñu man koo saafara ba duñ ci àgg waaye boo xoolee daal de façon générale euh, globalement maam les résultation sont satisfaisants parce que am na des contestation par exemple fa mel ni kersi yu mel noonu mais boo seetee lu ci baree bari maanaam euh, dëppoon na ak yoon daal ci ni ma gisee. non mais euh, maître Abdoulaye Ndiaye est-ce que tamit jàppoo ne code électoral bi waruñu ko changer ndax tey par exemple tey ci ville yi comme par exemple tey ville de Rufisque ville de wala ville de Guédiawaye comme li ngay wax sànq li daloon ay dara est-ce que bi ñuy voté na xam ne kii mooy tête de liste ci ville bi est-ce que mënuñu woon a jël ne tant de conseil ni ñu toppalantee ñii boo boo boo leen di fal da leen askan bi ñoo leen di falaale euh, ñooy falaale conseil yi nga xam ne tey ñooy nekk euh, premier conseil deuxième conseil beneen bi mooy transfert d'électeurs yi tamit est-ce que mënuñu woon ci teg benn euh, loi bu leer boo xam ne dafay sanctionner ñi nga xam ne tey ñooy dëkk beneen commune ñu dem bindu beneen commune. waaw ah, boo seetee sama njëlbeen wax maanaam ñaari point yooyu nga wax noonu yëpp développé naa ko maanaam dafay yell xam nga dañ wax ni l' expérience c'est l'ensemble des fautes yaa ngi jàngat yaa ngi màgg ci jafe fóot yi ngay def maam jafe-jafe yi xam ni wees nga ko nan nga mën a def ba ñu ko ba mu ëllëgee nga bañ caa tàbbi man jàpp naa ni ci code électoral bi dañ ko war a soppi bu baax a baax soit ñu def ko suffrage universel direct maam ñu kii fal maire ni fale maire bi noonu lay fale également les conseils bu ko defee problème bi amoon géejawaay dootul am ci Sénégal te loolu yaakaar naa ni acteurs yi aussi ñu ngi koy bàyyi xel baneen bi ci nekk mais yéen defu leen ci benn proposition ankay ankay ankay addu nañ ci d'ailleurs boo xoolee ñun am na ay résolution bu ñu jël te fan yi ci néew yu tuuti rek dinañ def benn déclaration pour wax également suñu njàngat ci maanaam système électoral bi day sax boo gisee moo tax ma àddoo di ma àddoo ni faut xamal la ni la le système électoral sénégalais tel qu'il est aujourd'hui maanaam dafa am ay jafe-jafe ay gàllankoor yu fi yoo faw faaw ñu soppi ko ngir gën a enrichir effectivement la dynamique démocratique. mais loolu am naa beneen jàngat si bu ma def. ci wàllu élection locale dama gis nii boo seetee maam ñun Sénégal. ba tey réglementé wuñ li ñu wax les fonds de campagne électorale. c'est-à-dire. fonds de campagne électorale da ngay gis dëkk boo xam ne nii da ngay gis koo xam ne day jóge fële rek. parce que yor na doole am na alal exemple ci Taïba Ndiaye. waaw euh, waaw par exemple non Taïba sax taxul mais am na. exemple. waaw ci par exemple boo yëree di gox bu mel ni Taïba Ndiaye da ngay gis par exemple koo xam ne nii day yor alalu boppam rek alal joo xam ne xamul nu ko amee. Mm-hmm. xëy maanaam imposé wu ci population parce que yor na doole maanaam jël alal di ko dugal ci askan wi te xamuñu lu muy liggéey xamuñu alal ji saytuñu fan la jógee tey loolu boo demee dans les grandes démocraties dañ koy saytu boo nee déclaré wuñ yow candidat nga mais dañuy saytu yow looy def ak lan ngay liggéey revenu ñaata nga am li ngay alal ji ngay joxe ci biir foo ko jëlee boo seetee lu mel noonu dal na Sarkozy Sarkozy actuellement lu tax ñu di ko topp en France. mooy yu mel noonu donc dañu war a maanaam réglementer maam créer des comptes de campagne électorale. loolu financement merci beaucoup. loolu état du Sénégal ci war a bàyyi xel bu baax mooy boo seetee. képp loo ciy ragal loo ciy ragal. Euh, maanaam li ma ragal ci lu ni mel mooy da ngay gis ni par exemple du fekkee nit ki dafa ñëw maanaam yor alal maam yor pouvoir. sa fekk na dafa am ay link ak man ay société terroriste wala yu mel ni maanaam ay brigands yu mel noonu loolu ëllëg mën naa tourner contre effectivement donc notre pays wala nos populations mu yu mel noonu moo tax ñu war di ko saytu di xool kii kii laaj mooy kan lan jaar-jaaram lu mu doon alal ji mu yor di ko dundee fan lu ko jëlee bu ko defee war na def bilan def déclaration de patrimoine dama yaakaar sax déclaration de patrimoine waruñu ko yable ci ay postes électifs mhm. maam képp koo xam ne nii nee nga da ngaa bëgg doon dara ci réew mi pour jiite ko mhm. war na noo saytu yow foo jaar sa jaar-jaar loo am ak lu amul bu ko defee tey boo duggee ci mbir ma ba pare boo pare nga defar également beneen déclaration ñoo xam ne yow sa alal fii la toll la ci ci réew ci Côte d'Ivoire ñoom gi loolu dafa am bu une fois nga déclaré sa candidature ban acté ko mais da nga état bi da lay accompagner mais fii malheureusement te n'est pas le cas xoolal parti bu mel nii ab ah, euh, sunu parti bii di. MPD MPD ñun est ce que xam nga nii Abdou Hadj parti bi ñu yor mooy parti bi gën a ëpp sur maanaam organisation ak méthode ci ci réew mi boo ko waxee nag dañuy jàpp ni damay xëcc mbubb mi ci sama wet déedéet demeewul noonu boo xoolee mel ñun ci li ma xam bokk ñooy parti boo xam ne sàmmonte nañu ak maanaam la loi sur les partis politiques. chaque année est-ce que xam nga ni obligation la ci parti bu ne mu def ay état financier mhm. déposer ko auprès du ministre de l'intérieur mel ni ñun donc ba ren gi def nañ ko yàggul dara il y a deux semaines on a déposé un document un rapport de page vingt quinze pages détaillé dans les moindres dans les dans les moindres détails euh, xaalis bi ñu am. fu ñu ko jëlee en kay ay cotisation man mi damay cotiser. Hmm. waaw waaw man mi bu retardé sama sama cotisation rek bu retardé mais man parti bi daf may relancer. ni ma war ngaa cotiser tant te loolu man damay cotiser ñi gën a maanaam mujj adhéré sax ci parti bi dañuy cotiser boo ñëwee loolu la li njëkk rek mooy da ngay cotiser tey boo xoolee fonds yi ñu joxe ci. caution bi ñu joxee ci élection législative fan la jógee ay ay ay ay ay cotisation la te loolu dañ ko wane ba mu leer boo seetee même jur sa jur sa ngay xool rapport ba demal ci internet donc ma page Facebook bu MPD liggéey boo ko boo ko boo fa defee ay recherche di nga gis maanaam euh, caution yi niñ ko niñ ko collecté ci maanaam dans les moindres nga gis maanaam euh, dépôt yi au niveau donc euh, de la banque mm-hmm. da mu leer nañ donc loolu aussi maa ngi ciy woo maanaam état du Sénégal ñu bàyyi ko xel parce que est xam nga ni maanaam le fait de ne pas déposer financier de santé au regard de l'article 5 maanaam motif de dissolution la d'un parti politique moo tax. affaire parrainage ban app waaw maanaam at mu ne. at mu ne fin année bu ne d'exercice bu ne da war a dem déposer en fait un état financier. donc APR di ah diisuma ko man. gisoo ko parti la boo xam ne nii. léegi ku ko def da yoon. ku ko jàdd yoon te dañ war a dissoudre loolu la loi bi wax. léegi mais kon Sénégal respecté dara xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne loi yu am solo la yor yu jekk te jug. waaye xoolal kenn du ko appliqué dans sa rigueur mais bu ñu ko appliqué woon dans sa rigueur kenn weesu kenn wax doon mais parrainage bi rek. mais mais mën nañu ñëw ci euh, parrainage bi sànq da nga wax lu euh, am solo mooy. par exemple tey euh, nit ki nga xam ne dafa bëgg. ñu dénk ko benn gox. par exemple tey mu yor alalam ñu war a saytu moom mooy kan. Euh, tey par exemple tey mën nga dëkk ci benn localité boo xam ne. homme d'affaires mën naa nekk sa ginnaaw. mën na bañ a dëkk sax si localité boobu financé la xaalis soo gañee di nga am possibilité euh, daggal ko suuf di nga am possibilité jox koy marché euh, nangam ak nangam yow yow yow loolu loolu nga si jubla wax. waaw loolu bokk na ci. dama ni maanaam képp koo xam ni dangay ngay taxaw li wax ni man dama bëgg ñu jiital ma ci ab gox wala gox goxaan yell na ci bala ñu laa fal ñu xam yow yaay kan. d'accord lan nga jàng. Mm-hmm. sa xam-xam fu mu toll. foo jaar loo am ci alal lan mooy sa yéene ci gox bi nga bëgg a laaj. ci programme bu wóor loolu bu ñu ko saytoo ba pare dina tax nit ki dinañ xam ni kii kat alal ji muy dugal ci askan wi dinañ jàppale alal yoo xam da ko liggéey ñàkk ko di ko di leen ko delloo waaye liñ ciy ragal mooy nit ku am doole te jubati wala saay-saay na ci gannaawam ngir bu ko jotee man koo wax ni ko xooleel fii parce que am na ci ñoo xam ni dañ leen di pare parrainer mm-hmm. li tey ne fële am alal mun doonul dara ci population yi parce que jikkoom melul na mu war a mel. Mhm. mais xam na ni comme ji jëlee day jël koo xam ni jàpp na ni jikkoom nit ñi nangu nañ ko. Mhm. mu financé ko bu ko financé par li mu ci jublu mooy suuf si xam ni moom la nit ñi am gox goxaan bi mu teg ci loxo. bien yi xam ne richesse bi xam ne population moom la mu teg ci loxo te it mënu xamuñu sax ndax maam moom ci jëmmi boppam kooku ay organisation terroriste ñoo ne ci ginnaaw wala déet te loolu lu mat a bàyyi xel la boo xoolee taal na réew yi bari donc moo tax sunu réew mi war nañ koo bàyyi wax xel te aussi mën naa bëgg naa ñu am benn jàngat xam nga boo seetee dañuy bëgg a wan ne ni maanaam ci élection locale yi baromètre la pour élection présidentielle déedéet ça n'a rien à voir sëñ Abdou élection locale du baromètre bu nu mën a sukkandikoo pour maanaam xam maanaam nan lay élection législative di demee donte donte le présidentiel hmm. donte donte maanaam avertissement la ci régime en place bu fekkee dafa gis ni la majorité des grandes villes daf ko perdre loolu ça veut dire quelque chose mais c'est pas un baromètre parce que boo seetee élection présidentielle rendez-vous la avec un homme et sa population tey jii fi nu war euh, li ma jàpp mooy l'élection en en en lice mooy euh, euh, élection yi xam ni mooy profilé à l'horizon maanaam c'est c'est c'est un moment décisif boo xam sénégalais yi war nañoo opérer en fait li ñuy wax en fait une alternative générationnelle tey loolu jàpp naa ni ki ci gën a yell ci fii may wax ak yow weesuwul le président Aliou Sow est-ce que xam nga ni Aliou Sow mel na moom ci maanaam ñi wut maanaam réew mi moom nga ci gis koo xam ni maam contenu ci jaar-jaaram mooy xam-xamam mate na ko sëkk ab yaram ak i teggin mate na ko sëkk waaye aussi nit la koo xam kenn mës koo dégg muy traîner des casseroles seetlul ñiy wut ñëpp koo ci gis alalam mën nga boo ko saytoo saxla tey Aliou Sow kenn ku ne xam na ni maanaam lu ne gaañ parce que bu ko yoroon wala mu def ak njuuj njaaj kon euh, état bi topp na ko bu yàgg te boo xoolee gis nga liberté de ton bi mu am li muy wax président de la république ak régime bi fi nekk en place kenn du ko àddu kenn du ah. ci àddu te mosoo gis mukk ñu inquiété ko xam lu ko sabab mooy li ko sabab comme olof li wax la taxa taxa yomb ko meññ paquetu ko mooy moom ci njub la ne maanaam ci njub la ak ci dëgg boo seetee xam bi matte na ko sëkk c'est un professeur titulaire des universités boo seetee maanaam euh, ci occupé na poste bu man di doon ci état du Sénégal donc jàng na te ki ko jàngal aussi du n'importe qui mooy. mooy maître Abdoulaye maître Abdoulaye kenn ku ne xam ne ni njàccaar la ci wàllu politique. d'accord mais mais mais maître euh, Abdinaar li nga wax ci euh, docteur ali Sow. Mm-hmm. loo xam ne sénégalais yu bari mën nañ cee dëppoo. Mm-hmm. que ne am na xam-xam. Mm-hmm. nit la boo xam ne tamit. doo ko dégg ci yenn mbir yi wala ñu ne Aliou Sow moo fi wax lii wala moo fi def naka su dul noonu mais est-ce que docteur Aliou Sow moom dina ñëw nag euh, fësal wax dëgg ñëw jàpp ñi nga xam ne war naa ànd ak ñoom. Mm-hmm. ci opposition bi ñëw wane taxaw wane wane taxawaay boobu ndax sew su dee tey am nga xam-xam. Euh, mën a convaincre nit toog fa nga toog solo si mën naa bañ a bëri su doon dem nga si biir opposition bi waxtaan ak ñoom amaana am na lu fa nekk loo xamante ni war nga si mën a bokk si ñu koy changé wala nangam ak xam ne loolu gis nañ ne amul. waaw en fait ñun ba ñu di collaborer. wala di maanaam ànd ak ni ñuy wax maam ëpp yeneen membre opposition bi waaye nag opposition également des fois da ngay gis ni maam critères yi ñuy doxal maanaam pour jiital doomu aadama c'est pas des critères objectifs parce que nit ki boo demee ci muxtaaru ahadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñuy jàngal ni nit buñ kay tànn dañ koy natt ci yu baree bare mooy xool ko ndax am na xam-xam bu wóor xool jikko ja ndax jub na xool également ndax kuy dox ci dëgg la ndax borom yërmande la également mais boo seetee da ngay gis koo xam ne nii maanaam parce que mag la yàgg na ci pop ci politique ñu ne comme mooy sunu euh, maam ancien mooy sage bi nañ ko jiital te alors que buñ ko saytoo ñi mu ñi mu ñi xam ne ñoo ne ci ginnaam ñoo ko ëpp xam-xam foofu. ah mais mais moom moom Aliou ko taxawaay foofu mais moom Aliou Sow bu duggoon ci coalition yi. waaw lii nga te ni tey euh, xam xalaat bi. Mhm. Euh, bu demee dina wax xalaat bi. waaw mais loolu bañu ñu ko la ni mettre en avant da dul dëppoo ak ligne de conduite parti bi parti bi dafa jàpp ne buñ dee jiital doomu aadama dañ ko war a jiital rek ci maanaam des critères objectifs mais bu fekkee maanaam sur la subjectivité la ñuy dem maanaam nit ki daal mag lanu mag moom moo mag mooy doyen bi mhm. donc nañ ko jiital loolu c'est pas un objectif am réew la ñuy laaj réew du ay caaxaan waaw mais Aliou Sow aussi dafa mais Aliou Sow aussi dafa euh, dafa xaw ñu ngi ci kaay ma leeral ñun ñun suñu ni man bokk mhm. man ci maanaam gëm-gëm a gëm ni Aliou Sow c'est une alternative crédible pour le devenir du Sénégal moo waral man ma ma ma ma, ma di ko jàppale suba ngoon guddeeg bëccëg mu jaral ma nag également lu mu jërul kenn mooy fi mu toll loolu bokk na ci li sabab man ma dem ba Ndiaye pour def maanaam déposer ma candidature campagne wane parti bi mooy li muy firi mais boo xoolee Taïba Ndiaye tey boo fa demee réccu nañ li fa xew parce que dem nañ ba ràññee ba xam ni Abdi Maître Abdi Naar Ndiaye mi moo gënoon ci ñoom ndax ci lan mooy xam nañ ma ci ak njub xam nañ ma ci dëgg xam nañ ma ci yar ak i teggin xam nañ ma aussi ci ak njub te it maanaam alal ji ma am dama koy delloo ci gox boobu di leen jàppale suba ngoon guddeeg bëccëg tey jii lu mel noonu yaakaar naa ni mm, ku mel ni man ak ñeneen ci parti bi ñu ngi doxee noonu ngir gën wane maam sunu parti pour nit ñi wóolunu nu dénku nu ñu mën a jiital Aliou Sow. Ah, ah, mais mais xam nga maître Abdinaar Ndiaye li ma lay wax sànq nii ci yéen MPD liggéey da ngeen a xaw a ber seen yoonu bopp. Mm-hmm. tey euh, docteur Aliou Sow xam-xam bi nekk ci moom. Mm-hmm. wala yar geeg teggin gi. Mm-hmm. am na si ñu mun ak njub gi am na si ñu mu nekk ñoo xam ne ñoo ngi ci opposition bi. pour pourquoi pas. mënul mhm. dem mhm. euh, collaborer ak ñoom gis nañ fi ñoo xam ne ay borom mi xam-xam lañ. Mhm. ay euh, Boubacar Camara fii. ay docteur Abdourahmane Diouf fii ñoo xamante ni am nañu yar am na nañu teggin am na nañuy jaar-jaar. pourquoi pas du ngeen dem ngeen fekk ñenn ñu mel noonu ngeen. ànd ak ñoom naa yaakaar ni loolu sax li nga wax nii dina am parce que docteur Abdourahmane Diouf kenn ku ne xam na ni boroom xam-xam la. Mhm. tey it maanaam euh, jàpp naa ni nit ku jub la. Mhm. ñun ñu ngi waxtaan ak moom sa d'ailleurs pour xool ci ban dynamique la ñuy dem ci élection législative yi moom ak ñeneen ci ni nga ko waxee mooy li ma la wax rek cest di dire ñun dañu coalition sur le principe nous sommes d'accord mais faudrait-il également buñ dee ànd ñuy ànd ci ay critères objectifs yoo xam ne réew mi rek lañ ci bàyyi xel bañ a bàyyi xel nos intérêts crypto personnels loolu mooy sunu jàngat mooy sunu yéene ci ci ci lu nu mel wax na moom moom jiite ak ñàkk jiite ñoo yam ci moom waaye day fekk rek maanaam bu ñuy àddu jëmme ci réew mi muy doon loo xam ni njariñu réew mi kese moo ci nekk. léegi euh, élection locale yi bala ñuy ñëw ci euh, euh, parrainage bi bala ñu koy fàtte parrainage bi élection locale yi yéen MPD liggéey am ngeen ci satisfaction. waaw bu mag si yéen seen taxawaay est-ce que xam nga ni sëñ Abdou Khadre maanaam élection yi ñu génn c'était la première fois. maam MPD liggéey di dem ci ay élections ban fa demee boo seetee tey liñ am ci ay nombre de conseillers ça dépasse plus de 1500 conseillers ci kuy soog a wu maanaam dem ci élection tey am na ay communes yoo xam ne ñu ñoo ko gagné loo mel ni Wakaam rek Wakaam ñun ñoo ko gagné ak faneen ak faneen donc ñun satisfaction bu mag lañ ci ci xamala ko lu ko sabab mooy dañ ko wut ci yoon ci aw yoon. man ju sàmmoonte sàmmonte ak maanaam loi sénégalaise ni nga ko tëralee ci wàllu sàkku maanaam yu ni mel waaye aussi def ko ci loo xam ne alal jong wóor na ni sunu alal jun dajale ci ay ñaari dërëm ak ñetti dërëm ci loo xam ne luubal ak njubadi nekku ca moo tax euh, te aussi au final leen am ci ay conseil ci ci ci ci ci ci gox ci gox goxaan yi néew na parti yoo xam ne nii ñoom boo xoolee si génn jëmmi bopp rek maanaam am na ko boo xoolee ñu ci bare bare ay coalition lañ demee coalition yu yóbbaale leen waaye ñun ci sunu maanaam mm, keppaaru bopp lanu demee waaye bi ñu demee bi nu xoolee sur l'étendue du territoire tey may ma xamal la au profond fond du Sénégal ñun am nañ fa ay ay ay ay ay ay ay résultats yu positifs yoo xam ne soit ñoo ko jiite nekk maire ba wala ñoo nekk adjoint maire ba wala ñu am fa ay maanaam conseil yu am solo. Ah, mais ah, mais maître Abdinaar Ndiaye yéen waa MPD liggéey aussi bu ngeen jàppee ne da ngeen fee ëpp xam-xam mm-hmm. wala da ngeen fee ba a dem fekk yenn mën naa nekk mën naa nekk njuumte. déedéet nekkuñu ci loolu de nekkulu jàppuñu ni ñun ñoo ëpp xam-xam ci réew mi jàppuñu ni ñoo gën a jub wala ñoo gën a tegu ci yoon ci réew mi de dañu jàpp ni maanaam ñun buñ dee dem ci ay coalition li ñu war a jiital mooy mooy mooy mooy Sénégal mooy ñu xool ci ñi xam ni ñooy daje ki ci ëpp maanaam man-man ak xam-xam ak taxawaay. ak ay lijaasa ci parce que yooyu moom mooy nattuwaay yi xam ni mën nañ ci sukkandiku pour am yaakaar ci doomu aadama. kon kon yéen coalition yi fi nekkoon amu leen si woon benn coalition yaakaar. non am nañ ci ñoom yaakaar waaye dañ ne dañoo dëppoowul ak ñoom ci gis-gis ci ni ñu war a doxalee. maanaam waaye bu ñu dugg ci coalition ñun coalition ñu sommes ouverts xam ci docteur Aliou le président Aliou Sow dafay wax ni moom ci parti bi ci ñaari ñaari ñaari ngémmiñ yi rek lay dox mooy maam rénovation ak ouverture ñun loolu lañ gëm bis bu ne ci yooyu rek la ñuy dox naka lañ mën a def maam pour rénover maam les structures du parti pour mu gën a dynamique mais aussi nan lañ mën a amee ouverture pour ñeneen ñi pour ñu mën a ànd ak ñoom ci intérêt Sénégal mais xam nga tey euh, maître Abdou Nar Ndiaye man dama jàpp ne tey euh, Euh, docteur Aliou Sow war na mën a dugg ci coalition mais bala ngay xam dëppoo ngaa ñoom gisin wala dëppoo ñoom gisul il faut nga dugg nag ba ci biir ngeen am yenn waxtaan yoo xam ne ma nga fa ndax mën nga dugg ci coalition ñoom ñu am loo xam ne moom lañ tegoon nga ñëw wax leen convaincre leen ci xel ba ñu ñëw fekk si la mais bu dee da taxaw fa nga taxaw rek ne dëppoo ma ak ñoom gis-gis boobaa jàpp naa ne euh, mënul nekk njariñul opposition bi yëpp. waaw no loolu mësuñu koo de xam nga ñun maanaam fépp koo xam ni woote nañ fa rek pour les débats démocratiques ñun teew nañ fa waaye da ngay gis ni maam tey jii ci wàllu opposition bi am na ci yoo xam ni bala nga caa àddu ñoom fésal nañ lañ bëgg a doxale xam nga loolu aussi ab ànd du demee noonu. ànd àndum nawle la ànd da ñëw nga toog ak sa nawle ngeen discuter waxtaan objectivement ngeen xool la xam ne mooy ci ñëpp ngeen doxal ko. waaye bu fekkee yow kalay woo ne la nen ñu ànd moom fekk na mu jël na ay décision ba pare la muy def defar na ko ba pare ni la diw laay jiital programme bii laay doxal yow amutoo ca xalaat bu ko defee yow da ngay jàpp rek ni kon kii moom bu ñu ko jiitee ci réew met moom ci xalaatu boppam rek lay dox loolu la ñuy ñu ñun dañu bëgg daal bu ñuy ànd ñu ànd ci dynamique boo xam ne nii day nekk une dynamique xam ni mboolem ku daje maanaam ci waxtaan yooyu dañ lay jox cër jox la gëdd déglu la xool la xam ne mooy li gën ci Sénégal ñu tànn ko ñun ñëpp ñu ànd jëm ko ñun foofu mais euh, élection législative yi mm-hmm. euh, dañu indiwaat parrainage bi mm-hmm. Euh, gis naa sax. sa benn euh, naataango. Mhm. maître Abdoulaye Tine. moom dafa defoon recours ci euh, CEDEAO bi élection présidentielle après élection présidentielle yi. Mhm. CEDEAO jox ko maanaam mën nañoo ne jox ko dëgg. Mhm. ndax dafa waxoon état bu Sénégal fii ak juróom-benn weer mu xoolaat ko. Euh, gis nañ ne état bi defu ko indiwaat na parrainage bi euh, arrêté bi ministre bi génn sax. Mm-hmm. maître Tine nee na mm-hmm. dina saisir. Mm-hmm. cour suprême. yow en tant que euh, avocat lan moo ci sa xalaat. waaw d' abord sëñ Abdou li ma bëggoon ñu bàyyi ko xel mooy que ni parrainage maanaam sur le principe parrainage lu am solo la ci démocratie parce que système de filtre la maanaam système de filtre la boo xam ne ni boo seetee ci dans les grandes démocraties fépp la am aux États-Unis d' Amérique. d'ailleurs les primaires dañuy wax États-Unis mais primaire forme de de parrainage la boo demee au au au au fii lu mel ni Grande-Bretagne. Mm-hmm. mais foofu également système de filtre bi nu teg tax na ñaari ñaari maanaam euh, parti rek ñooy ñooy ñooy ñooy jongante. Mm-hmm. mooy les travaillistes et les conservateurs. Mm-hmm. boo demee en France également système de filtre boobu dafa am. donc sur le principe amul problème. man jàpp naa ni parti bu digne bu sérieux maam wërta bañ ñu natt ko xayma ko ba xam lu moo ndax moom am na légitimité wala déet man jàpp naa ni loolu maanaam ñëpp ci war a dëppoo ndax lan ñaari raison mooy pour la rationalisation des candidatures parce que tey jii au Sénégal est que xam nga ni Abdou Khadre réew mi plus de on a plus de trois cents partis politiques pour seize millions d'habitants. Mm-hmm. mais mais sëñ Abdou Khadre loolu bu ñu ko rationalisé woon mais musiba lay jur parce que Ndiokhor ñu kenn ku kenn waaye bu mu neex rek nga jóg ni man candidat la te alal ji ma lay wax comme alal ji alal mën naa jóge fu ne bu alal mën naa bañ a doon maanaam problème pour nit ki bokk nekk candidat mais maanaam pour ñu rationaliser maanaam les candidatures ak aussi l'utilisation des fonds publics parce que boo xoolee tey bu ñu autorisé maanaam te deful fil deful filtrage ku jóg rek nekk candidat mais tey jii maanaam impression bulletin bulletin mais ça coûte cher. boo amee par exemple toog 300 candidats wala 200 candidats yi war a dem élection présidentielle candidat bu ne nga war a taxawal sëñ Abdou Khadre bulletin hmm. war a également may ko temps d'antenne télévision mais 300 candidats fan la jaar ci télévision. wala war a voté. wala war a voté nga ni ta vote code électoral dafa booy voté da ngay teggi bulletin yëpp. dem ba ca mañ gàcce go soog a tànn waa imaginer ñu ni trop euh, maanaam permettre na 300 personne ñu concourir à la à la présidentielle mais kenn kuy boobaa vote du am que. bu ñu koy rek moom la bulletin foo koy rangé problème la rawatina yow kañ ngay jël maanaam yooyu ñaata temps la lay jëlal ci maanaam moins a effectivement voté. kon loolu mais mais bañu ñu mhm. mhm. parrainage. bi mais. parrainage def. Mhm. parrainage boobu la ñu jàpp ne dafa am ay leçons. waaw effectivement xam nga parrainage maanaam comme ni ma ko waxee. c'est pas un phénomène nouveau même en 1960 mais euh, euh, il existait déjà le système. Mm -hmm. avec mooy le, le parrainage des élus. dixième des ouais. députés et tout. mooy euh, moo taxoon sax moo tax deex na tax merci beaucoup donc yu mel noonu. Ah. Euh, yàgg na fi kon du lu bees waaye ana aussi ñi xam ne moom lañ ciy ragal mooy man dama jàpp ni c'est un peu également doy na waar ci kaw mooy boo seetee parti bu dem élection législative. Mhm. gagné ay communes yu bari lu mel ni quoi yeewi askan wi. Mhm. xam nga au moins ils ont gagné cinquante de cinquante communes waaye ñooñu ngeen leen yow manaam yow mënoo dem élection parce que maanaam amoo parrainage xam nga loolu c'est insensé loolu xel du ko nanguwul ku mel ni MPD liggéey par exemple maanaam nga ni mënut a dem élection législative jàpp nga ni représentant alors qu'il a plus de 1500 en fait donc euh, conseillers dans euh, sur l'étendue du territoire national gagné ay commune et mais kooku boo nee ko yow mënoo dem parce que da nga parrainage loolu également kooku mën na jàpp ne loolu c'est insensé looloo tax xëy na waa opposition bi di def ay manifestations pour wax ni maanaam loolu dëppoowul ak ni xam ne noonu lañ boo seetee man jàpp naa bi parrainage bi mënoon nañoo ci euh, ci élection yu ñu jëm mënoon jël benn solution bu gën a bu gën a simple mooy ñu ni ci ñu doon wut élection législative yi ku ci am san cent conseillers. ñu teggil la parenage effectivement ñu ni ku gagné benn commune. Mm. ci ñu doon wut. wala benn département. Mm. ñu teggil la ko loolu solution la. waaw ah, mais temps de conseil rek moo gën a. waaw mu ngi temps de conseil ku ni kër ko par ñu ne am na ku am cinquante conseillers wala cent conseillers teggil nañ la ci élection yu ñu jëm maanaam maanaam lu mel ni euh, maanaam euh, parrainage bi hmm. wala wa illa bu fekkee loolu mënta nekk. ñu xool euh, par exemple ku gagné donte benn commune la. wala benn département la. loolu yaakaar naa c'est une solution alternative pour benn situation yi xam ni fan lañu dem nii may wax. d'accord mais euh, mais mais maître euh, xam nga tey maanaam bu doon tey élection yi. Mm-hmm. ku neutre moo koy organisé xel mhm. dina mën a dal ci parrainage bi mhm. waaye su dee ministre bi nga xamante ni tey ministre de l'intérieur moo koy organiser te mhm. Macky Sall si boppam di patron ñu gis ne élection locale yi tamit def na loo xam ne xel nangoo ko ndax xel xalaat lay jëriñ boo ne biir réew mi yëpp amul benn liste benn bokk yaakaar bu ñu rejeté te ñi nekk biir benn bokk yaakaar ak ñi nekk ci opposition bi jàngandoo politique xamandoo politique bokk ay dëkkuwaay loolu tamit nga rejeté ñee seen i liste nga ne Benno Bokk Yaakaar moom liste yëpp lañ validé. Mhm. xel mën naa teey. ka mhm. ne législatif mën naa ñëw nga invalidé ñu bari seen i liste. mais loolu am sax d'ailleurs boo gisee maanaam la CEDEAO a rendu un arrêt le 28 avril 2021. Mhm. pour euh, de ñu demander à l'État de supprimer même la loi sur le parrainage. mais li ko sabab mooy aussi euh, système parrainage bu ñu ko seetee euh, ñi koy xam ne ñoo koy doxal bu fekkee ils sont de mauvaise foi ñooñu kun bëgg a recalé recalé la te leelu ku ci weddi dara da ngay laaj yu sunduur rek ah. wala Keba Kende ñooñu dañ leen recalé ci loo xam ne nii boo si ça pose problème parce que question du xam nga euh, loi kaay ma leeral tuuti sëñ Abdou Khad boo seetee la loi sur le parrainage le système de parrainage dafa am ay problème ci wàllu yoon rek droit laa wax dafay forcer dafay violer le droit à la libre participation aux élections parce que ñenn ñi dañ ko jàppee comme une loi d'éviction mooy loi boo xam ne mën nga ciy sukkandiku koo bëgg a kal kal ko loolu euh, benn la mais aussi dañu jàpp ni ça viole aussi le secret en fait donc euh, de l'exercice du droit de vote xam nga seen parrainage yow déjà dañuy xam yow kan nga bëgg a parce que kenn nga war a tànn mais loolu ça pose problème objectivement ki nga parrainé moom ngay voté. moom ngay voté waaw ku mel noonu kon déjà on a porté atteinte en fait au droit de vote. te loolu ça porte atteinte également à la déclaration universelle des droits de l'homme mais aussi au pacte international sur les droits civils et politiques moo tax le notre confrère la il a raison Alioune Tine le il a raison c'est que euh, quelque part boo xoolee objectivement loi bi ci boppam c'est anti anti démocratique parce que dafay bloquer maanaam des ambitions dafay également bloquer le pluralisme politique et démocratique Mm-hmm. jàpp naa ni côté boobu maa ngi moom déggoon nañ ci bokk nañ ci bokk na xel boo xoolee moo tax euh, euh, la cour de justice de la CEDEAO a pris a rendu effectivement cet arrêt du 28 avril mais loo boo xoolee arrêt boobu Sénégal maam doxalu ko te pourtant ma xamal ne arrêt yooyu ils ont la force exécutoire dans les états membres normalement dañ ko war a appliquer mais boo seetee euh, côté boobu aussi le président même effectivement de la pour rendre na compte que ni l'effectivité de l'exécution de ces arrêts pose problème dans les états membres. d'accord mais euh, maître Abdoulaye ci parrainage bi dafa am lu bari loo xam ne. Mhm. Euh, ni war nañ ko see jàngate ndax nee nañ région bu nekk. Mhm. sept régions ngay tànn. Mhm. région bu nekk nga am fa mille parrains. tey par exemple tey état bi. yor na cartographie élection yi. ay si misaal bu xoolee ne Yewwi Askan Wi kat. ci mm-hmm. région de Diourbel. Mm-hmm. moo gañoon département Mbacké te département Mbacké boo xoolee Touba mooy deuxième ville du Sénégal mu ëpp électorat. Ah, léegi léegi su ne département Mbacké Yewwi moo ko gañe woon def nay sondage sam xam ne Yewwi mën na ko gañe région bi. Mm-hmm. te bu gañee département Mbacké am na cinq députés. département Diourbel état bi daf ko ñàkkoon pouvoir bi. am deux député même deux députés Bambey muy nekk neuf députés. tey te bu ñu invalider. Mhm. sa liste ci région boobu. Mhm. mooy yow sa liste mënut a dem ci région boobu. Mhm. léegi loolu tamit. est-ce que jototoon ñu waxtaanee ko. kaay ma leeral moo tax ma ni la euh, sëñ Abdou xam ñu dëppoo ci xalaat gis nga li nga wax nii te tellement pertinent que ni moo na boo gisee man les leaders de l'opposition taxaw di fu xeex xam na li tax. olof nee na la taxa taxa yomba ko mais n'y a pas d'effet sans cause le fait que ñoom ñuy xeex lu mel noonu xam na ni état bi s'il est de mauvaise foi mën na utiliser le système de parrainage pour paralyser yenn candidature yi loolu c'est une réalité xoolal képp ku am xel xam na bu baax ni c'est maanaam loi bi loi la boo xam ne nii maanaam système la boo xam ni mën naa tax ñu filtre ñu bari même sur base de yor yow ñu muy def euh, bourse familiale yeeg ñun ñëpp état bi moo yor suñu état kay déggu li ma la état amul lu ko lu ko lu ko ump amul lu mënul parce que kàggu yëpp nattuwaay yëpp ci loxoom la ne. waaw mais yéen MPD est-ce que est-ce que wax ngeen ci est-ce que. Ah, mais sans doute on va faire comme wax naa la ko nee la ñu doon def nañ def nañ réunion la semaine passée jël nañ des man dinaa. effectivement communiquer non ànduñu ci. man daal ñun proposition bi bi jàpp mooy comme li ma la wax cest à li gënoon yomb. mooy ñu ni képp koo xam ne ci élection législative yi demoon nga ci am nga wala cent wala wala gagné benn commune ñun ñu épargner la le système de parrainage te loolu xel da koo nangu parce que kooku mënoo ko wax ni koy amoo benn représentativité mais man mii di wax ak yow ah tey bañ xam nga man man rek man j'ai obtenu 1068 voix mais man kan moo mën a taxaw ne moom amoo benn légitimité à Taïba Ndiaye. 1000 1068 voix. te tey tey yokk Taïba Ndiaye si commune Thiès la. te commune Thiès la région de Thiès la. ci benn commune la. ci Thiès. waaw euh, man ma man faa man en tant que euh, leader kii représentant du du MP di liggéey 1068 voix. une seule commune. ci benn commune. kooku nga ñëw ni ko non. région bi région bi waaw loolu ça pose problème. mais loolu problème waaw. ça pose te man je sais que ni au niveau de thème présentement nii loolu ci njëlbeen la waaye fii may wax yow nii man je peux avoir plus de cinq mille cinq mille. cinq mille ah, moom euh, dëgg la maître Abdoulaye Ndiaye ndax xam nga tamit tey par exemple tey. Mhm. dangay gis ne tey bu doon euh, yeewi la ñu la commune Wouta am na plus de vingt mille. vingt mille votants. Mhm. vingt mille votants nga ne ko yow ci région de Diourbel gi yëpp. département Mbacké ñëw département Diourbel ñëw département Bambey ñëw nga ne ko mënoo am i parrain. waaw mooy loolay problème bi xam nga ki nga état. maanaam euh, état en tant que amul problème ñi koy incarné ay doomu aadama lañ dañu am xalaat am jikko boo gisee ñu koy ragal ñuy xeex. yu mel noonu tax parce que ki xam ni jikkoonam jikkoom dafa safaan maa mën naa utiliser loi ci anam bu ko neexee te ma xamal la loi yi xam ni moom la ñu loi yi ñu tënk noo ko bëgg a sopparñe sopparñe ko par des techniques yoo xam day légal te loolu moom lay ragal moo tax gaa yi di xeex parce que bu doo fekkoon loi bi maam ni mu mel kenn mënu koo soppi ci dara parce que loi yi di leen di interpréter te interprétation boobu également c'est euh, liberté moo ci am kon man ni ma ko gisee ak na koy keneen di gise mën naa wuute. d'accord léegi euh, euh, état bi mën naa utiliser loolu pour maanaam écarter te lay d'ailleurs loolu la ñuy redouter parce que existé na existé woon na daan le passé kon bu ñu ko euh, bu ñu koy ragal c'est parce que jàpp na ni mën naa mën a. d'accord jërëjëf maître Abdinaar Ndiaye yow yaay porte parole MPD liggéey élection législative yi wax nañ ci parrainage bi yéen MPD liggéey mm-hmm. ndax pare ngeen pour dugg ci ay coalition ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal. waaw effectivement d'ailleurs sax ci loolu la ñuy travail présentement nii euh, deux semaines yi wees yëpp ci ay série de réunion lan nekk. Euh, pas plus tard que la semaine passée am nañ ay leaders yoo xam ne nii ils sont dans l'opposition ñu ngi waxtaan ak ñoom pour nasandoo noccendoo ci élection législative yi ñu jëm te am naa yaakaar ni xëy na mën naa prospérer waaye ak lu ci man di am ñun li ñu gëm rek mooy ñun Sénégal dong moo nu ñor naka lañ mën a def naka lan mën a boolee sunu xalaat ak sunu man-man ba réew mi mën a jëm ca kanam lépp lu nu koy may rek ña nga ca bu dee coalition mooy tax ñu am ko den ca dem bu fekkee beru mooy tax ñu dañ cee dem ndax ñun Sénégal dong mun yitteel ba ñu nu opposition ànd ak ñoom waaye comme ni ma la ko waxee rek nan jiital Sénégal te ba ñu jiital suñ jëmmi bopp wala suñ am ami bopp loolu ñëru ñun ci en tout cas bëgg ti nu MPD liggéey li nu gëm mooy maanaam ñu fàtte suñu bopp ngir askan bi. d' accord léegi euh, maître Abdoulaye Ndiaye demoon nga élection locale ci Taïba Ndiaye ñu jeexale ko waxtu wi euh, jeex na euh, tey demoon nga élection gagné woo. Mhm. commune u Taïba Ndiaye. Mhm. ndax tey boo demaatoon élection dina am looy jubba ndax lan nga si jàngatee. waaw sëñ Abdou Khadir xanaa sant yàlla suñu borom xam nga wax naa la ne la fii ñun ay jullit lan te jullit mooy lan topp ndigal bàyyi tere te lu yàlla dogal mu neex la man ba muy wuti ci war ma ak ci njub ak ci dëgg rek laa doon wutee ba ma demee ba ca njalbeen gat gis naa ni yàlla nii la dogal te lam dogal ca sansare dama ko daal di nangu xam ne lii moo gën ci man te moo gën ca askan waat tamit ndax yàlla du juum yàlla xakim la léegi nag am nañ ci ay jàngat yu am solo parce que gis na ni man bi ma ñëwee euh, bi ne suba la élection yi man jàppoon naa ni may remporter les élections waaye damaa gis yeneen don yu feeñ ci biir mooy système de transfert bi gis naa mu mu mu mu mu ràññee ci loolu gis naa aussi ñu jël alal ju bari utiliser ko jox ko ay doomu aadama ni leen voté ku nu laaj ñoom boo xoolee ku nu laaj ci tund wi rek danaa la man de maître bi lay voté avocat bi lay voté comme am na njortu lool ñoom ñu débourser beaucoup d'argent la veille dem ci ay doomu aadama te li ma wax lu leer la de ay famille proposé leen ay cinquante mille pour man leen a pour ñu mën a voter pour pour des listes am na des personnes yoo xam identifié ne xam leen te xam ñooy ñoo nekkoon les acteurs loolu day fausser le jeu démocratique waaye comme li mu wax rek ku nduumin rey sa maam boo gisee ñu dangay daw loolu dina may bu ëllëgee ñu mën a defaat ay jàngat ba mën a soppi yu mel noonu pour gën a conscientiser les masses gën leen a maanaam wan naka lan war a taxawee ci élection ba bu ëllëgee yu mel noonu bañ leen a daal mais boo seetee euh, man li ma gën a neex ci élection buñ ci génnee dama gis ni population bi ma jàppale man j'ai gagné des centre de vote te maa ngi doon soog a dugg ci élection j'ai gagné effectivement Gade Ngomen centre de vote la boo demee maanaam Daaru Ja ça pour la plus de cinq villages je l'ai gagné ba Taïba ci maanaam sept de vote yëpp fu ma vainqueur bi amee cent am naa fa cinquante gagné également yu mel ni ay Taïba Santhie yu mel donc yu mel noonu li ma wan mooy nit ñi am na nañu cofeel ci man am nañu bëgg-bëgg ci man am nañu yaakaar ci man. léegi nag dañ laa jaaj waaye dañ laa waaw dañ maa jaaj bu baax tey xam naa ni bu ca delluwaatoon tey bu doon tey bu doon bu doon démb bu doon tey wóor na ma ni ma ma gagné élection yi parce que population dem na ba ràññee xam ni choix bi nu def maanaam maa maa gënoon ci ñoom keneen ku dul man. mais avant élection yi doon nga dem. tay ba wax ak jege askan bu baax wala da nga koy bàyyiwaat ba élection yi. ah déedéet man commencé naa def naa ay descente demaat parce que maa ngi wàcc benn caravane de remerciement pour dem maanaam ci gox-goxaan yi xam ne ñoo composé Taïba tundu ba sant leen gërëm leen ci jàppale gën ma jàppale ba ma agsi fi ma agsi te it maanaam jàpp naa ni liggéey bi ma tàmbali woon dama koy gën di wóyul waaye dama ca dellu ginnaaw parce que li ma doon def askan wi rek a tax ma duñ ko def maam politique toog maire taxul woon man ma jóg en réalité dama jàppoon ni bokk na ci euh, euh, anam yi xam ni bu ma fa toogoon man li a gën a dimbali loolu rek laa ko jublu woon waaye teewu woon maa nelaw tey jërul woon maa def naka sudul noonu ci jub rek laa ko wute ci njub laa ñàkk tamit waaye la ma ca am sant naa ca yàlla nag gis naa ni am na ñu ma jiitu woon ci wàll wi yàgg fa lool te li ma am ci maanaam représentation ñoom amuñu ko loolu politiquement jàmmaarloo nga fa ak euh, Alelo ma ginnaaw ah. ginnaaw dogalub yàlla ginnaaw dogalub yàlla aaliloo bu daanoo man maa tax xamal tax mox la ko maanaam aaliloo ginnaaw kii kii xam ni moom mu ji raw moom moo ci tegu te moom moomu aaliloo moomu la lam doon gañi bu njëkk loolu laa nangu ci ay loxoom gàdda ngoomet musu koo sékk kenn maanaam daaru jab yi may waxe yow xam ne ça fait plus de cinq villages mosu koo sékk ak kenn Taïba Ndiaye da daa ko gagné largement mais dama bi ma ñëwee moom xam na ni sax ba ma ñëwee xam na day ñàkk que gis na ni ma li ëppoon ci population bi fu ma dem rek dandaa ma topp te gis nga ci dara vidéo yi ma doon xam ne loolu mbooloo mu toll noonu te buñ ko xaymaa mbooloo mi ma toppoon ci kii bi mooy mbooloo mi ma voté na boo ko nattee dafay toll transfert bi rek moo ma sonal nit ñoo xam ne mais bu doon loolu kon gagné baax a baax di am ah ci maanaam euh, ñëwaat fii ci sa euh, réew mi FM euh, sekk ak yow waxtaan ndax waxtaan yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne mën na gindi ku ne mën na gën a leeral ba réew mi gën a mën a soppeeku ñu lay sant di la gërëm di rafetlu également sa gëstu xam nga booy waxtaan ak boromam xel ak borom koo xam ne day gëstu yow sa xel day dal parce que da ngay xam ne li ngay wax ci xam-xam rek nga koy teg. jërëjëf maître Abdinar Ndiaye mbokk yi moom mooy porte parole MPD liggéey ci euh, wuy bi euh, ñu ni nuyuwaat bu baax a baax euh, président Aliou Sow mi nga xam ne mooy mooy leader am kon mbokk yi auditeurs yi ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci kaddu gi Mamadou Diawa jàll ci wàll machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.